pencum ndawi réew mi d' assemblée nationale bi ñu amalub séance plénière ni ki ëllëg ci euh, altine ji li ko sabab nag moo di sëgg ci examen projet de loi ngir nag xoolaat constitution di cartu réew mi li ko tax a jóg nag moo di mébétup nguur gi fi nekk président Diomaye fay ngir nag jële fi ñaari banqaas yu kaw yi la di haut conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social et environnemental loolu nag ay xeltukat yu bare bari seen xel màcc itam jëm ci euh, wàllu muy moo di ne bu jàllee mbetteel lay doon ndax nag nguur gi fi nekk amuñu fa majorité Ibrahima Diame. fukki waxtu la ñu convoqué député yi ci séance plénière boobule ngir càmbar projet de loi 11 2024 bi nga xamante ne mu ngi aju kon ngir ñu xoolaat lii di constitution bu Sénégal wante nag ci gis-gisu Doudou Wade nekkoon fi député xam-xamam màcc ci mbirum voté loi moom jàpp na ne projet bi amul benn chance ngir jàll ndax ni assemblée nationale bindoo. pour ñu mën ko jàllale pour nangu ko ñu koy nangoo ci fukki nit yu nekk euh, boo ko boo ko xaajee ci juróom ñetti xaaj yi ñoo mën a nangu loolu mooy bu fekkee ne téeméer ak juróom benn fukki ak juróom yëpp ñëw nañu ñoom ñëpp ñu voté pour que loi bi mën a jàll nekk loi d'état il faut juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ne waaw te juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yooyu kenn ci assemblée bi amu ko Benno Bokk Yaakaar am na juróom-ñett fukk ak benn ñële am na ñuy juróom-ñett am na ñeent non inscrit maanaam loo jël ci ñële dolli ci ñi du am ngoonte boon tey li situation bi joxe mooy bu fekkee ne benn bokk yaakaar tëj ne téye nañu seen nit moom leen ba téye leen ñu ñëw ci assamble bi ànd def benn bloc voté na nañu d'accord pouvoir bi amul fu mu mën a jëlee fu mu mën a jëlee juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent pour am loolu moo moom da ngay jàpp ne loi bi mën nañu jàpp ne warul mën a jàll ci assamble bi ëllëg Babacar Gaye moom itam député la woon ci assemblée nationale moom benn gis-gis bi la am mu jàpp ne proposition bi mu gis ne mbirum politique képp moo ko tax a jog dana jafe lool mu jàll. comme commission bi déjà ñoom dàq nañu euh, texte bi euh, dama njort ne. plénière bi itam euh, dina dàq texte bi waaye balaa mu koy dàq nag njort naa itam dina am débat waxtaan wu tar ci assemblée Euh, kenn ku ci nekk wax ni nga gisee say mbir. waaye lii moom bu fekkoon ne sax dañ ko def te dugaluñ ci politique mun am ko konoon député yi am nuñ taxawee. waaye euh, ni ma ko gisee daal dafa mel ni président Diomaye Faye dafa bëgg boole député yi ak euh, askan wi jàpp ne man dama bëgg a tas conseil économique social amul njëriñ dama bëgg a tas au conseil amul njëriñ waaye député yi bañ nañ. ci fàttali nag assemblée nationale mu ngi ci deuxième session extraordinaire ci lu yàggul dara bi nga xamante ne nag quinze jours la war a durer président de la république moom moo ko ñaanoon ginnaaw bi ñu réactualiser lii di règlement intérieur bi nga xamante ne adopté nañ ko ba noppi. lii lépp nag Ibrahima Diame ay pexe la ngir ilimaani jëwrin yi di Ousmane Sonko bañ di déclaration politique générale am foofee ci assemblée nationale ki ni gisee moo di ancien parlementaire bi la di euh, Cheikh Oumar Sy mi jàpp ni nag président Diomaye mënoon naa jaar ci yoon wi gën a gaaw mu di nag amal ab référendum su ko defee ci jëmmi jamono bépp bànqaas bu mu fi bëgg a jëlee dina mën a nekk Cheikh Oumar Sy ak Ndongo Ka engagement bi président de la république jëloon pour que premier ministre def déclaration de politique générale assemblée nationale wax na ak sama premier ministre ñu ëlbatiku ñu indil ko document bi signé wu ko ñu ëlbatiku promulgué wu ko ba pare delluwaat ci l' ancien règlement de l' nationale pour demander ñu dissoudre conseil économique et loolu ça veut dire a pas de cohérence dans la démarche parce que moom moo toog ci kanamu se lay ne ni ñun mënuñu jël action yooyu parce que amaguñu majorité donc ñoom waroon nañoo xaar tënk loolu yëpp ci benn référendum yi jébbal ko ñu xam fan la ñu jëm pour 2025 yan orientation boobu sénégalais yi ne leen ah bu ñu eggee janvier nañ dem référendum ndaxte président bi war nañu lu leer ñu mën a def loolu mais dañoo jékki saa rek dégg na daf ko bëgg a dissoudre te méngoowul ak li mu ak sénégalais yi avant mm-hmm. donc y a des problèmes aujourd'hui réels yoo xam ne ñu ngi ngi constaté dans la démarche te gëm naa ne loolu bokk na ci pour pour dimbali premier ministre bañ a def déclaration de politique déclaration de politique générale am ngeen di woy di déglu xibaar yi guddi gi ci rajo Futur Media juróom-ñeenti waxtu moo jot ba tegal juróom-ñaari simili. pour man RFM mooy rajo bi gën jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. xibaar bu ñu fi dab léegi mu di kon euh, doomi directeur général bu hôpital régional bu euh, Diourbel nga xam ni ñaar fukki fan ci weeru ut ak léegi ñu ngi ko doon seet moom nag ca morgue bu hôpital Matlaboul Fawzeyni ba nekk ca Touba lañ ko mujjee fekk mu daal di euh, faatu ba fii nag amul benn xibaar boo xam si nag jot nañ ko ngir nag leeral lan moo ko daal di faat xibaaral boo xam ni suñu ndaw lañu ñu toogal ca njaareem ak la ko wër di Babacar Diouf moo ñu ko baaxee. météo itam daal di ñuy baaxee xibaar lu jëm ci ah, taw bi ne ñu ngi ciy xaar ay taw fii ba suba ci altina ji jàpp talaata rawatina nag ci gox yu baree bari dakaar gi sax ci la bokk euh, Abdoulaye euh, Diakhaté moom ca euh, ingénieur la kon ca ANACIM ñu teewlu kook Jo Maroon dañuy nemmeeku ay taw yu ànd ak ay dënu yu ñu mën a nemmeeku ci sud réew mi suñu waxee sud réew mi nag ñu ngi wax euh, euh, dëkk yu mel ni Kédougou yu mel ni Kolda yu mel ni Sédhiou dem ba Ziguinchor foofu ñu ngi fay di ay dënu at ay taw waaye dënu yooyu taw yooyu mën na wàlli ba laal centre dëkk bi. lu si mel ni ay localités yu mel ni ay Nioro ay Koungheul ay Fatick ay Kaolack dem ba Diourbel. wàcc Thiès donc foofu ñu ngi fay xaarandi ay yëngu-yëngu ay taw yu yamamaay waaye région wu Dakar tey ñi ngi xaarandi am fa ay niir yoo xamante ni euh, mën na muur asamaan si te niir lu yooyee mën na joxe ay wicc wiccal si yenn localité yu nekk si biir Ndakaaru waaye lu ko dalee suba jàpp gannaaw suba mën nañ xaarandi ak dal si li gën a euh, ëpp si réew mi donc lu ko dalee wàll côté nord bi jëm si centre bi foofu noonu pratiquement ak dalandi lañ fay kii nemmee duñ fa nemmeeku bu soobee yàlla benn taw côté boobu noonu waaye boo wàccee nag ñëw si sud bi donc foofu noonu sud bi mën nañ fa xaarandi ay dënu ak ay taw lu ko dalee si euh, njeexitalu bis bi jàpp guddi gi donc njeexitalu bésu suba ak gannaaw suba jàpp guddi gi ñu ngi xaarandi ay yëngu-yëngu yëngu-yëngu bu ñu ko waxee mooy ay niir yu ànd ak dënoog taw euh, si sud bi yu si mel ni nag ay gox yu mel ni ay Kédougou euh, Kolda dem Sédhiou dem ba Ziguinchor ak Cap Skirring ñu ngi ko fay xaarandi. fleuve bi doon avancé bu baax ca Matam Kédougou ak Kidira mbir mi nag lépp daal dinay tegewaat ci yoon daal am na ci directeur euh, bu gestion ak planification des ressources en eau ca ministère hydraulique moo ko daal di xamle Bakary Fati lay wuyoo ñu teelu ko Idriss El Walid Sow fu ñu toll nii euh, ndax baa ngi wàcc ci station yëpp yi nga xamante ne xawoon nañu andi ay point critique mel ni Bakel Kidira Matam fu ñu toll nii Bakel niveau baa ngi wàcc ba toll ci sept mètres soixante trois centimètres donc mu ngi si suuf côte d'Alerte bi Kidira même situation moo fa am niveau baa ngi wàcc ba toll si cinq mètres soixante six donc muy si suuf code d'Alert Matam même situation tamit moo fa nekk niveau baa ngi wàcc ba tollu sept mètres cinquante et un donc si suuf code d'Alert donc euh, ci tënk rek situation boobu moo am ci fleuve Sénégal tool yee doon yàqu ca euh, bët gànnaaru réew mi léegi tey nag mu daal di ami euh, saafara lu toll ci juróom-ñetti téeméer ak juróom fukki hectare ci tool yi ceeb loolu nag directeur général bu SAED mi fa amal tukki nemmeeku moo di ne nguur gi dinañ ci def seen kemtulaay kàttan ba daal di koy sauver Mamadou fii ñu ngi fi bay ren nii nii ci compte si si bi 850 donc 850 boo ko sauvé defe naa ne sauvé nga ay famille yu bëri sauvé nga également Sénégal donc loolu moo tax ñu ñëw fii pour taxawu leen pour jàppale leen pour que effectivement ñu am ay rendement yu baax am production bu baax mën a dundal seen bopp mais également dundal Sénégal liggéey bi ñuy def ni président la République moo ñu ko sant ak premier ministre Ousmane Sonko mais également le docteur Mabouba Diagne ministre de l' agriculture de la souveraineté alimentaire de l' élevage ñoonu yebal fii ñu nekk ci wetu béykat yi euh, di saytu seen coono pour nekk une administration de proximité ñu ñëw pour saytu liggéey bi nga xam ne moom la ñu def mais li ma mën a wax mooy liggéey bi nga xam ne commencé nañ ko fii ak euh, les travaux de maintenance dal na suñu xel defe naa bu ñu continuer fan rek defe naa ne problème mu am fii si si jawel bi beneen bi ma bëgg wax également mooy ñu góorgóorlu xam naa ni fi mu nekk euh, sore nañu trop si hivernage bi. am na ñoo xam ne ñu ngi si un mois ñu ngi si deux mois donc ñu ngi si taalage. ñu saytu ñu toppatoo seen tool yi également. pour que ci fin ba ñu mën a am rendement yu baax. parce que objectif bi ñu am mooy aujourd'hui bi ñu définir. dans le cadre donc du nouveau projet. bi nga xam ni moom la nguur bi di doxal. mooy ñu góorgóorlu bu am li ñuy wax souveraineté économique. mais souveraineté économique boobu balaa ñu koy am il faut ñu am souveraineté alimentaire. moo tax mbéy mi am solo. te naa ni euh, nguur bi dootu leen loxo pour que véritablement jawel problème bi ñu am fii doot fi amati. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wér te wóor. Matar Samb gàmmu gi ca Tiwaawoon ñoo ngi ci wàccaay gi bu baax a baax tey jii comité d'organisation ba doon na na amal ay waxtaan janloo itam ak taskatu xibaar yi ngir fésal li cay am yees ren gi bokk na ca cérémonie officielle bi nga xam si nag dañ koy àndal si ba ca suba ga bëgg nañ lépp jeex laataa ñuy julli euh, tisbaar xalif bi itam dina yëkkati kàddu yu am solo bokk na ci itam li nga xam si dina ci am moo di caabi jumaa ji nga xam si nag lépp yemb na ba ñu war ko koo jébbal waaye xalif bi nee na laata bu ñu gàmmoo ba noppi kon lañ koy daal di ubbi Cheikh Anta Diop. Serigne Moustapha Sy ibnu Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin bokk ci comité d'organisation bu gàmmu bu Tiwaawan yëkkati kàddoom béral ko nag ren ji xalif général bi dina yëkkati ay kàddu yu am solo jëmale ko ci jullit yi ngir dégg ak topp wan mbokki taalibe yi ni xalifa bi li mu bëgg insha allah fii ci dëkk bi loolu lay am li mu bëggit ci réew mi loolu lay am li mu bëgg ci doxalin wi insha allah loolu lay am kuy taalibe ubbi nga sa nopp moom rek ngay dégg li mu joxeñ kon loolu la ñuy def taalibe bokk na ci li koy sagal mooy fu mu déggee baatu kilifaam rek mu doxal la kilifa ga bëgg kii di sëriñ Abib Si ibnu sëriñ Mansour si borom daala ji ñaax na bu baax mii dikk ci Tiwaawan ñu ànd ak yar ak teggin jëkkante bi yokk paas yi waxoon naa leen fi daaw ni maamam Seydil Hadj Malick radiyallahu anhu moo waxoon ni taalibe bu bëgg ñëw ci Malick te amul pexe que fexe ba mu ñëw ci Malick dana am dara te daray Seydi Hadj Malick jooju nag dara la. cérémonie officielle bi niñ ko daan amalee at mu nekk ren jii am na ay yu ñu ci fas yéene indi. commencer les mises en place à partir de neuf heures et finaliser la cérémonie officielle avant la prière de Tisba. neuf heures ci suba la ñuy def mise en place. bala ñoo julli tisbaar cérémonie officielle bi dina jeex comité bi ñu taboon xalif général des Tidiane joxoon leen ndigal ngir ñu tabax jumaay Tiwaawan ju yees ji nee nañ daanu jébbal xalif bi fukki fan ak ñeent ci weeru septembre caabi jumaa ji ngir wane ne jumaa ji noppi na waaye xalif général des Tidiane nee na jumaa ji dañu koy tëj ba gàmm gu weesu ngir mën koo ubbi RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jaajëf Cheikh Anta Diop ñu daaneele ca Linguère ak préfet bay woo ndaw ña nag ñu daal di gën a dugal seen euh, loxo ci activité citoyenne yi su ko defee nag dëkk ba dina daal di euh, gën a mucc ayib mu yëkkatee kàddu yu ni mel nag ci randonnée boo xam si doon nañ ko fa amale moo du moom mooy préfet bu Linguère ñu teewlu ko ko Baye Assane Diaw. bi dañ ko organiser ngir préparer li nga xamante mooy bésu set setal bi ñu prévoir ci 7 septembre samedi bu jot njëkk ci mois bi le président de la république son excellence a décidé que nañu jëmmal bésu setal loolu nag ci la nekk ngir préparer journée bii di ñëw nga xam ne ñu ngi ko jàpp ci 7 septembre moo tax ñu jëmmal randonnée écologique bi nga xamante ministère de la jeunesse des sports et de la culture moo ko jëmmal ngir ñu def ko mu nekk randonnée boo xam ni comme niñ ko xamee du randonnée xam ni dañuy def rek ay activités sportives dañ ci toftal aussi ay activités de nettoiement moo tax fi ñu yëpp dañu jël ay sachet ramasser tous les déchets yu ñu gis sur notre passage loolu nekk na loo xamante lu ama am solo parce que non seulement dinañu permettre ñu setal waaye itam dinañu permettre ñu gën a sensibiliser population yi si wàllum nettoiement parce que nekk na loo xamante dafa am solo si suñu environnement ak suñu cadre de vie waaw loolu moom appel bu may lancer rek parce que waxoon naa ko ci CDD bi ñu defoon jëm ci wàllum euh, préparation nawetaan dañu li nga xamante ni mooy énergie bi nga xamante ni mouvement nawetaan dina koy mobiliser war nañ ko orienter ci yeneen activité sport maanaam daal euh, sport bi rek waru mën a nekk activité am na yeneen activité yu ñu ci mën a toftal yoo xamante ni mën na indil njariñ population yi te loolu activité de détournement yi ci yi a mobiliser nga xamante moom la ñuy def parce que bu dee ASC bu ne mën na mobiliser ay joueurs am ay supporters am quartier am de manière générale ngir nettoyer gëm nañ ne amul benn localité boo xamante dinañ fa gis ay mbalit football lañ koy euh, door aju gaynde di waajal kon uh, seen ñaari jongante bokk ci uh, première ak deuxième journée uh, ci wàllum qualification CAN Maroc 2025 Sénégal di daje Burkina le 6 septembre ca stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio su noppee daje ak Burundi bokk Ligue Angleterre troisième journée bi Liverpool moo ko gagné ñoom Reds si dañoo daan kon Red Devil yu Manchester United ñetti bal ci dara Luis Diaz moo dugal ñaari but Mohamed Salah doomu Égypte bi moo dugal ñetteelu but bi. ci république tchèque euh, joueur bu bees bi Aliou Cissé woo di El Hadj Malick euh, dugal na euh, but pour Slavia Prague moom moo daan tey Pardubice ñetti bal ci benn. ca France Nampalys euh, Mendy moom ci banc bi la nekkoon ak Lens Lens def match nul euh, ku nekk dugal sa morom benn bu ak euh, AS Monaco Crépin Diatta nekkoon ci banc Monaco waaye dugul Lamine Camara mi amoon carton rouge ci match bi passé bokkuloon kon ci feuille de match bi. Mikel Ngor fay euh, toog euh, gulet kon ci banc bu ren waaye jotul euh, dugg équipe am bi daal di ñàkk diggante ma ak Reims ñaari bal ci benn Aruna Sangate moom Aliou Cissé woo ko bi yoon waaye titulaire la woon nekk tamit capitaine bu Le Havre moom it daan Auxerre ñetti bal ci benn rasul Ndiaye moom moo dugal ñaareelu but bu Le Havre Bamba Dieng nekk remplaçant joué minute yu njëkk ak Angers Angers dafa ñàkk kon euh, digganteem ak Nice ñeenti bal ci euh, benn euh, foofu la ca France ba tey ñii diwaa waa Lille moo leen fekki daan leen ñetti bal ci benn. ca Espagne Real Madrid jamono yi mooy jongante beti Betis Séville euh, kii di Kylian Mbappé moo dugal ñaari bu yu euh, euh, Real benn bi ci penalty la 2-0 la kon match baa ngi wéy Betis Séville Youssouf Sabaly mi jël retraitam ci wàllum équipe nationale mu ngi titulaire kon ci équipe boobule match bi kon mu ngi wéy. kon nañu jàpp ni lu jege fukk wala lu ëpp joueur yu Sénégal jot nañu kon bouger euh, changer club ci mercato bi ñu tëj euh, ci euh, samedi bi ci minuit ñu ñëwaat kon ci ñu ci gën a fës ànd ceeg Omar Mbow. ci waxtu yu mujj ñeel mercato estival bi la Bamba Dieng daal di officialiser ñëwaatam ci Ligue française bi international sénégalais bi nga xamante ni ñaari fukki at ak ñeent la daal di am. daal di jugee Lorient pour dem Angers ginnaaw après nag sans option d'achat bi les champion d'Afrique nag daal di dugaloon bi am bu njëkk laata kon muy jógee Lorient beneen ndaw doomu Sénégal te xarañ lool moom toppul FC Metz Lamine Camara dafa daal di dem ca Monaco mi nga xamante ni daal di na qualifié ca Ligue de champions européenne koppar bi ñu génnee ngir transfert bi mën a am nag toll na ci 15 millions d'euros yeneen ñaari gaynde nekk doomu Sénégal daal di nañu jóge itam ca Ligue un française dem ca Première Ligue anglaise Elimane Ndiaye mi nga xamante ni dafa tegoon ay valisam OM daal di jóge Marseille kon ngir rek dem ca Everton ñeele juróomi saison amul benn ci ñaari club yi nag bi nga xamante ni wane na xaalis bi nga xamante ni moom la ñu génnee ngir transfert bi am waaye nag bi ñu sukkandikoo ci ay médias sportifs yu bëri club anglais bi di Everton dafa teg ci lu toll ci 20 millions d'euros ci table bi Ismaïla Sarr daal dina jóge itam ca Olympique de Marseille ngir delluwaat ca Angleterre attaquant international sénégalais bi xaatim contrat juróomi at ak Crystal Palace bile transfert nag lu toll ci 15 millions d'euros lañ ko fay musa Niakhaté nag jóge Angleterre dem ca France ndaxte nag Nottingham Forest la nekkoon dem ca Olympique Lyonnais défenseur international sénégalais bi nag moom tamit daal dina fa dem ngir ñeenti saison te koppar bi toll ci 32 millions d'euros la ñu ko daal di jëndi Abdallah siman beneen doomu Sénégal moom tamit daal dina ñëw ca Ligue ginnaaw bu mu jógee fi nga xamante ni moom mooy Glasgow Rangers nekk ca Écosse billet transfert nag après la te it amul lu ñuy woowee option d'achat Pape Gueye mi nga xamante ni moom tamit daal dina libre ci contrat bu nekk jóge Olympique de Marseille ngir dem ca Villarreal ba atum 2028 milieu terrain sénégalais bi xarañ lool daal di delluwaat kon ca Espagne muy ñaareelu yoon bu mu fay nekk ginnaaw bu mu nekkoon ca FC Séville diggante janvier ak juin atum bu lay Dia moom daal dina jóge ca Salernitana des ca Italie dem fi nga xamante ni moom mooy Lazio de Rome ñeel ab contrat bi nga xamante ni ñeenti at lay doon. Omar Mbow ñu des kon ci Europe boobule jàpp ne Real Madrid ba tey moo mëne ba ci Séville euh, euh, kon ñaari bal ci dara ñu ngi ci quatre-vingt-dixième minute de jeu ca Italie Juventus ak Roma euh, def zéro zéro ca Allemagne ñii di waa Bayern Munich daan ñii di waa Fribourg ñaari bal ci dara. ñëwaat euh, Sénégal waxtaanee nawetaan ak phase nationale yu ñuy euh, amal kon jamono yi ci région bu Diourbel euh, bokk na ci résultat yi am tey Kabrousse bu Ziguinchor mi daan jire ji bu Sédhiou benn bal ci dara waaye maire commune Sédhiou boobule jàpp ni kon comme guléet la ñuy bokk ci compétition bi ni mel dañ def lépp kon ngir gën a taxawu seen région mu ngi tudd Mouhamed Lamine Diawara demoon foofu le ngir supporter équipe ñu déglu ko ci micro Pape Mbaye village euh, national deux mille vingt quatre te Diourbel la xewee ñun ñu indi ñu Touba te ñun tam dañoo ñëw pour encourager suñu xale yi euh, accompagner leen ñaanal leen pour ndam li mu dem Sédhiou am nañu yaakaar parce que bu ñu gisee taxawaayu xale yi gis taxawaayu encadrement bi je pense que coupe bi war na mën a dem Sédhiou incha allah te phase nationale mën naa wax ni waa région Sédhiou ngi te boo gisee ASC bi Juré la jógee waaye tey équipe bi ki nga xam ne moom moo nekk di coordonné Sédhiou la jógee donc ça veut dire que ñun ñëpp lañ sant yëpp ay ndey ak bàyyi lañu lu ñaan mooy ko coupe bi dem Sédhiou te loolu incha allah waa Sédhiou yëpp ñu koy ñaan waa Sédhiou yëpp ñu ngi derrière disons benn bus moo gaaree jógee Dakar jógee fu nekk ñëw encouragé euh, équipe bi yaakaar naa ndam li daal day dem moo Lamine Diawara di maire bu euh, jiree ji ci région bu Sédhiou euh, ci wàllum armatio euh, treizième édition Budo Beach amoon nañ ko ci week-end bi ay téeméeri pratiquant yi def ay aar yu wuute discipline yu wuute kon ñoo daje ci kon plage bu Yoff Jamalay séance de démonstration lañ fa doon def te initiative Sensei Yatmalo ñu déglu ko ci micro Mansour Ba dañuy dajale xeetu arts martiaux yëpp ñëw fii si plage bi saafantoo xamante daje ku nekk xam li kii di def karatika bi xam li judoka bi di def kii def kon kii doo xam li kii de euh, Viet di def te loolu day tax nga respecter discipline bi boo ko xamul doo ko respecté te lépp si àddina nag respect la moo tax ñu organiser ko soo seetloo comité olympique fédération yëpp ñu ngi si mais arts martiaux yi mat nañu dix-neuf disciplines mais dix-neuf disciplines yooyu du ñëw bokk ñu def suñu benn comité national des arts martiaux gën a ànd gën a booloo day neex mat nañu au moins trente mille bu kenn doon joxe dix mille ñaata la trois cent millions la par trimestre muy quatre trimestres c'est-à-dire un milliard deux cent millions ñu daal di tabax suñu temple duñu toppee état bi ñun wutuñu xaalis xam lu ñu bëgg nañ ñu defal temple temple du jar cinq cent millions bu ñuy dem championnat ñu jox ñuy billet jox ñuy euh, hébergement yëpp ñu dem. c'est tout bu ñu ko defee Sénégal day gagné médaille dañuy am médaille olympique dinañ am médaille mondiale. Sensé Yatmaloo kon nekk tamit euh, ci ñi bokk ñu jiite kon ci fédération euh, bu euh, karaté fi la yem ci.